asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di digtal benn vidéo boo xam ne ñoo ngi àndoon ak sunu mbokk benn Omar Dieng doon ko jël ci moom ak doon ko bàyyi xel ci lenn ci ay liggéeyam moom nag benn Omar dafa bokk ci liggéeyam ci réew mi muy di wër ci dëkku àll yi di xool dëkk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ndox mu fexe ba nu gasal leen ay teen ñu man di ca naan waaye it di ca wëgg seenu jur yàlla dogal mu doon gasal ab teen ci dëkk bu ñuy wax Sixaan ba mu fa demee di xool ca liggéey ba fu mu toll ci la gis benn mbokkum julit boo xam ne ay cëram dafa manqué maanaam tànk ya dañoo bañ muy ram-ram bu metti yërmaande yàlla dugg ci xolam moom benn Omar ba tax na mu delluwaat ca këram taxaw temm ngir wutal ko séesuru lant ngir woyofal coono yooyee sunu mbokk ma di dund gannaaw bam mu ko waxee ay mbokkam yu julit moom benn Omar yàlla dogal na ñu amal ko sées sées boobu nag lan doon yóbbu ci suñ mbokk jullit bii lu ci bëri nag suy def lu mel nii dañ koy filma wan ko mbokki jullit yëpp tekkiwul nag dañ koy filma ngir wanewu wala ngir yëkkati suñ daraja waaye it da dee ne dañ koy filma wan ko suñ mbokk jullit yëpp ngir ñaax leen ci ñuy bàyyi xel suñ mbokk jullit yii te kenn ku nekk war ngaa bàyyi xel bu baax saa bu la yàlla dafay lay wërsëg muy wërsëgu am am wala wërsëgu kàttan wala wërsëgu xel nga man di ca bàyyi xel suñ mbokk jullit yi suñ wa xallaqi wa xirzi wa mawili ilayka lada al isaari wal yusri الله لئن جلت وجمت خط السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيغي لين دي ci l'islam ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne yow laay waxal ak yi ma jàppale ci wàllum teen bi lii dañ koy faral di def lu ci yu bari waaye nag saa buñ ko doon def ba pare rek danañ ci jël nataal jëluñ ko nataal nag pour wan ko nit ñi ni ñu lii la def wala lii la dund defuñ ko pour wane waaye nataal bi sabab bi ko waral mooy après yeneen bokki jullit yi koy gis te bëgg a def lu mel nii xamuñ fu ñu aw xamuñ fu ñu jaar danañ mën a laaj wala danañ mën a jéem a xam ba xam fi ñuy jaar pour mën a jàppale ñu mel nii beneen bi ci toppit mooy bàyyiloo xel ñi koy ñi koy gis ni kat ñu mel nii ñu njëriñ jàppale la ndax lu tax dëkk bi ñuy wax sixaan yàlla mënoon na def ñu dund ba génn àdduna te duñ fi te duñ fi ñëw paap mi yàlla mënoon na def ñu dund ba génn àdduna duñ ko xam waaye ab teen bu ñu doon gas fii ci dëkk bi ñëw di seet si liggéeyu teen bi fu mu toll looloo tax ñu gis paat mi man nag fu ma leen gis ñoom danaa ñëw ci ñoom waxtaan ak ñoom ba ñu xam ni ak lu mën a xew ci ñun lañ bokk yàlla moo ñu bind defal ñu ay bët ak i tànk ay nopp ñuy dox di dem ko dikk dox suñuy soxlay bopp ñoom it yàlla bind leen am lum téye ci ñoom ba am loo xam ne dañ koy day jafe ci ñoom kon ñun ñi képp a mën a mottalil bu dee koo xam ne yàlla dafa téye ay bëtam ñoo leen mën a wan fi ñuy jaar bu dee ku yàlla te ay tànkam it ñoo leen mën a dimbale ba yóbbu leen fu ñu bëgg a dem xëy na duñ ko mën moo tax ñuy léegoo-leeg ñuy fàggu mel nii di leen ko indee saa yu ma ko gisee nag man su fekkee ne awma lu mu ko mën a jëndee danaa ci waxtaan ak samay bokki jullit di leen kat gis naa mbokkum jullit moo xam ni ma nga ca béréb sàngam soxla na dimbal lool te xam naa ne bu ñu ko dimbaliwut dana dana yéex a am dimbal ñu waxtaan xool nuñ mën a def ba fàggul ko lu mel nii loolu moo sabab lii bëgg naa nataal bi ñoo ñooñu gis ni kat ah lañ doon def kat di ko dimbale fexe ba dajale ba am ko loolaa ngi nii ñeneen ñi ci toppit bu ko defee buñ ko bëggee danañ xam fi ñu jaar loolu rekk la ak fàttali ci benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni bokk na ci jëf yi gënal yàlla suñ borom mooy dugal mbégte ci sa xolu mbokkum jullit paat Pape mi keroog bu ma fi njëkkee ñëw ba agsi nuyu ko yëg naa ci moom mbégte bu kawe loolu wax dëgg ñaareelu yoon bi yàlla xam na ko bi ma ñëwee waxtaan ak moom am lu am na lu ma doon jàmbat ba loola sottee bàyyi corno mi moo toll fële ca teen ba ñëw mu ni dafa dégg pap xaqataay xaqataay goo xam ni wóor na ko ni pap mi dafa kontaan temps yëpp ñu ngi koy tooñ temps yëpp ñu ngi koy tooñ portable bi loolu nag jullit ñi koy def mhm. laa bëgg bàyyi xel ni benn benn benn mbégte bu ndaw nga def ko sa xolom mbokkum jullit yiw la wu mag ci kanamu suñu borom kon muy paap ak muy keneen képp koo xam ni sa dëkk wala sa koñ lu mel ni nga fa soo ko mënee jàppale nga jàppale ko fii sa liggéey bi loolu amee nag siège bi képp la ñu waxoon ni paap dañ ko ko indil mhm. waaye bii ñëw gis nañu indaale saako ceeb mhm. yàlla dafa def dafa dogal ci sunuy biir yi bokk am ñu ne xaaral ñu jéem a fàggu ab saako ceeb yóbbaaleel ko paap su ko defee moom it dina ko mën a jàppandikoo dina ko mën a dimbandikoo euh, yaakaar naa sax am na yeneen bokk yoo xam ne ñu ngi koy bëggal ay yéreeg ay yeneen yu mel noonu pour mën ko jàppale te xam nga ko ci mel nekk paap mii xam ne dëkk bi tey mm, euh, bokkut ak ñi nekk ci biir ville bi bokkut ak ñu nekk ci biir ville bi xam nga ñooñoo sax mm. léegoo-léeg ñu romb leen wala ñu nekk ci buntu banque yi wala ñu nekk ci buntu jumaa yi waaye Pape daanaka pour mu gis tali rek lana dox ñaata kilomètre du ko gis sax dina am kilomètres yu bëri pour mu àgg ci tali ba kon daanaka lu mel nii rek nda ko yàlla mën a dimbalee ba mu am lii nii mm-hmm. lii daal Baye ma mooy saba sababu ñëw fii di ko indil chaise bi mooy sababu gi filmer ko mm-hmm. di wax samay mbokki jullit yépp ñi nga xam ne ñoo ngi gis lu mel nii mm-hmm. euh, doon naa ko wax lu bare bay samay fàttali ñi nga xam ne bëgg nañoo defal yàlla fii sabilillah nañu génne dem ci àll bi xool la nekk ñu bareen fa soxla ay teen lool ñu mën leen a dimbale fii sabilillah te kenn du yëg ñu mel ne paap ñun fa amuñu fenn fu mën a jooytoo seeni i euh, sàkku ndimbal su boobaa dañ ko fekk te dañu mën dimbali te te kenn du yëg loolu daal moo tax euh, ñu di ko filmer di ko nataal wan bokki jullit yi daal lii moo sabab ñu di ko def waaye jubluwuñ ci wanewu walla leneen lii képp a tax ñu di ko jël euh, yonent bi waxoon na alayhi salaatu wasalaam ni képp koo xam ni sa mbokkum jullit am na njàqare nga dimbale ko ba njàqare ja dem yàlla dana la dindil njàqare adduna ju àllaaxira waaye ku yombalal sa mbokkum jullit lu jafe yàlla dana yombal say mbir àdduna ak àllaaxira defe naa Pape xëy na lii mënoon na am jafe woon na ko mbokki jullit ñuy fexe ba loolu yomb ñu ngi yaakaar ni yàlla mën na leen yombal seen mbir adduna waaye yàlla wax ni yonent wax ni ku suturaal sa mbokkum jullit fii yàlla suturaal ko àdduna ak alaxira hmm. xadis yi daal ak laay yi la ñuy sukkandiku ba moo tax bu ñu gisee ñu mel ne que paap hmm. def ay jéego ba amal leen chaise leneen luñ ca mën a yokk yokk ko ca fii sabilillah hmm. euh, di ñaan yàlla mu defal nu jàmm te nangul ñuy jëf képp koo xam ne noppi na it pour jàppale ñu mel ne paap insha allah ñun ñu ngi lay tàllal loxo ànd ak yow rek ñoo def def dootul moo fi nekk démb ñu ngi koy waxtaanee fii ma ne kii bu doon intérêt la ba ñu tàggoo yàgg na waaye ngir yàlla lañu ñu àndee lan na ngir yàlla ci seen yi nga xam ne moom lay def ñoom nekkuñ yoo xam ne ñoom dañ koy photo pour di ci liggéey pour nit ñi dañuy génn te xam lan mooy jafe-jafe nit ñi ñuy xeex loolu ñeneen ñi nga xam ne am nañu doole te xam ne ñu war a jaar ñii mun naa ne ay ay ay maître lañ ci ñooñu di joxe leçon yooyu parce que nii ñu wane nii tey da nga gis ko xam ne mu ngi yor xaalis bu du jeex mais war a jaar fu am ñu mu dimbale ñii mission boobu la ñu ci kii li mu def am na yeneen cas yu mu def dul lii loo xam ne man xam naa ko gis ñoo xam dem nañ ko am problème mu mu taxaw faj ni ma ko kenn yëg Omar ngi maa ngi nii démb laa wax fii jiite ngi ni jërë ngi nii kii de ànd ñu ànd ñu ngir àdduna dañu ànd rek si yàlla waaw bu doon intérêt bañ tàggoo yàgg na ah Omar taxawaay bi dafa rafet xam nañ say jéego ñi ngay liggéeyal nag am na ñoo xam ne xamuñu projet bi dañu foog ne ni yéen da ngeen di dem ñun def ñu martandi di ko wane fee pour ñu jox ñu loolu de te ñu wër ñi ñi nga xamante ni ñii dañu am ay handicapé lañ ñii mënuñu gis ñii mënuñu fii dëkk bi xoolal dëkk bi numéro ñeenti kër yi kañ ne benn teen gisoo ko fi ñaata ñuy wër di gis jàngaro yooyu ba ñu tekkalaar la fi ñu gis ko yëkkati sa alal di ko fi def mm-hmm. mën naa ne ni dépense teen bi tey yokk na parce que lii sooraale boo waxee bàyyi daa koy wax def mm-hmm. mu mm-hmm. <laughs> koy ma soo pap ga yàlla maanaam te mosu mosu pour génne mu génne rek yelwaani xaram ba bés yi tey ay ni ji moo moo fi def boo waxee mu luy dundal li ñuy dundal yàlla dina ko kii nag bàyyi naa man ci suma bopp ci benn naa ko ci suma xol bàyyi naa ko yàlla yàlla mi am fee yàlla na ko yàlla fee suma xol daa fee